coowal criminalisé góor jigéen fii ci Sénégal xëccoo baa ngay wéy ci diggante nguur gi ak sàmm jikko yi ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk position ba nga ca am lànk nga ne doo ca jóge waaw ku ne xam na ni jamono ñi yépp Mame Mactar Gueye ak ñamu àndal ña ngay sàkku ñu modifier article 319 ca code pénal bu Sénégal la ñu ca bëgg nag mooy ñu jële wàllu ngóor jigéen ci délit yóbbu ko ci crime ginnaaw nag ba leen ko député yi gàntalee moom président ma Macky Sall àdduna ci de nee na nañu dalal seen xel ndax la mu waxoon du ca dellu fii ci Sénégal kenn du fi daganal mbiru ngóor jigéen fii ak ma yàlla na bàyyi ci bopp réew mi loi boobu xel xalaatul ñu koy yëkkati loolu kay mënuma ko kon mbir moomu waratuñ ko yëkkati kon dama xamantul ci mbir moomu lan moo war a tax di ñu xëy rek bés élection jëpp ñu yëkkati na waa nguur gi ñoom ñoo bëgg a dindi loi bi wala boog bañ nañoo criminaliser criminaliser nag mooy loi bi dañ koy def ci daan yi gën a métti mel ni ko rey nit. président nag daa mel ni ku joué double jeu te boo moytuwul sax ñu vaar kon ndax li mu wax wute na lool ak kàddu yi mu yëkkati woon ca bitim réew en 2018. sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ah, ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est mm. sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire. Quel est votre point de vue à vous Personnellement, personnellement, je pense que les gens, ils, sont, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème c'est pas mon problème. fi mu ne nag bi tarna lolu ci sen diggante ndax association ànd sàmm jikko yi dañu taxawoon tém ci sanctionner député yi nangul won adopter bi di loi. lolu taxone sax xana ñuy revendiquer débâcle Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu weesu. bërki démb la ñu demoon ci ab jongonté muy élection locale yi. déglu na ñu baree baree baree bari ñoo xamni ay nee ay analyste lañu. lié nañu fi nekk ni défaite bi nga xamni ni ñi rejeter proposition de loi bi fa lañ fété am nañ ko ak recul bi ak ñi leen askan wi sanctionné ñoom lëkkale nañ ko ak delloo gi ñu delloo ginnaaw proposition de loi bi ak nañ ko bloqué. bu fekkente ni askan wi ñoo moom réew mi. am soxla ni leen dañoo bëgg li ñu leen yéen seen soxla amul solo. nga wëlbati ko ni ko ma ne de dama laa soxla. moom it bu ko neexee di la yow it sa soxla ma ko solo. lii nag boo demee sax moo waral ral boolu président Macky Sall ndax moom génn na ca réserve ga mu nekkoon di joxar bi bile association di leen xamal ni dafa doy ndax li ñu nekkee rek du dara lu dul bëgg a jaxase askan bi ak gouvernement bi. wax joo xam dañ ko yëkkati si jamono élection. bu yemoon ci wàllu politique man du ma metti waaye su ma gisoon nag ñu dugal ci ay imam wala ay nitu diine dem di leen wax di leen won di sos ak di teg tuuma nguur gi. dañuy jël ay xutba ci ajjuma ci jumaa yi di ci wax di accuser assemblée nationale di accuser institution de la république loolu day daal di ëpp en tout cas ñoom ànd sàmm jikko yi li ñu jàppee kàddu président Macky du dara lu dul ab dilatoire maanaam layam-layami waaye taxul benn yoon rek ñu teggi seen tànk ci xeex bi d'ailleurs sax ñu ngi waajal ab marche ci weeru février bi. ndax xam nga ni Sénégal bi ñu demee 2018 ci EPU dafa wax ni loi Sénégal daa am góor Sénégal daanu ko te amul kenn ku ñu tëj ci kaso bi mbirum góor jigéen tax ñu tey la moom ci dilatoire la nekk waaye ñun mënuñu ko mettre loolu da cee am sax askan wi ni ko defal ñu nangam loolu daf ko war a def parce que loolu moo tax ñu teg ko suñ kanamu réew. lan moo waral déggoo mënta am ci bile sujet est-ce que réellement texte yi fi jot a nekk doy na ngir sanctionner wàllum góor jigéen fii ci Sénégal comme ni ko nguur gi jàppee wala rek c'est essentiel ñu corser les sanctions en tout cas bu ñu sukkandikoo ci nguur gi moom opposition bi dañoo bëgg jël bi le prétexte def ko ab bataille politique lu mën a nekk la nag ndax en politique moom tous les coups sont permis waaye tamit bu ñu fàtte ni réew mi ñu nekk muy Sénégal dañoo am ay réalité sociétale te sàmmoonteeg ñoom lu ñu war la mbaadu suñu gouvernement bi dañuy subir ay pression derrière comme ni ko ñeneen ñi jàppee ak lu ci mënti am nguur gi war naa bàyyi xel sàkkuteefu askan bi même bu dee sax ñeneen ñi jàpp nañ ni lii caprice rek la ak moyen de pression li lañ leen li loolu ci xibaaru bés bi fi ci Totem Actu way rek nous suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.totemactu.com